أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéen a ngi ñuy topp ci seen rubrique xew-xewu jamono ngeen ànd ak seen mbokkum taalibe Imam Dramé ñu ngi nuyu sénégalais yi fu ñu mën a nekk moo xam sénégalais yi nekk ci biir réew mi wala sénégalais yi nekk ci bitim réew tey nag xam ngeen ni xew xew jamono. dina ñëwaat ci xew-xew réew mi xew-xew réew mi nag tey xam ngeen li ci ëpp nit ñi di ko waxtaanee mooy discours boobu nga xam ni son excellence président de la république Macky sàll def na ko démb nga xam ni discours la boo xam ni war nañ cee def ay taxaw seetlu xëy na point yi mu laal bari na lool waaye ñun ñaari point moo ñu ci gën a intéressé en tant que ay nitu diine bi ci jiitu mooy maanaam lieu de culte yi nga xam ni dañ ko tëjoon ci jamonoy mbas mi mu ni autorisé nañ ko pour ñu tijji ko mbokk yi loolu point la boo xam ne dinañ ci taxaw tuuti joxe ci suñu xalaat parce que démocratie mooy ku ne wax sa xalaat ku ne wax la nga jàpp ni mooy solution ñaareelu point bi mooy maanaam le 2 juin bi ñu wax ni école bi dina ci ubbi maanaam école bi mooy classe yi nga xam ni dañuy def examen kon ñaari point yooyu lañu ñu fas yéenee indi tey ci xew-xewu jamono waxtaan ci ak askan wi di wax ni mbokk yi lieu de culture yi dañ ko tëjoon nax mbas mi te biñ koy tëj jàpp naa ni bu fekkee ni am nañ dix cas ci la ñu yem ñu tëj ko tey ñu ngi ci mille plus de mille cas ñu ni nañ ko tijji ah loolu moom jàpp naa ni li ñuy wax logique logique nanguwu ko waxuma xam-xam de mais logique parce que dafa am lu ñu tuddee xam-xamu mantiq logique logique nanguwu ko lu tax logique nanguwu ko mooy état du dem ci tâtonnement état warul dem ci tâtonnement benn waaye état warul dem tamit ci pression tax mu bàyyi décision waaw lu jafe la nag mais ci la ñuy xamee nax réew bala ngay xam ne am na état wala amul état mu nekk ci circonstance yu metti jamonoy pression waaw te gis nañ pression bi fu ne la doon jóge waaye jàppoon naa ni état bi waroon na ko mën a gérer mais malheureusement état bi dafa mujj sedde ndax mbokk yi bu ñu naxante ñi tëj jàkka yi duñu ay jaahil de ay jullikatu jàkka lañ waaye dañoo gëm ni mbas mi ci boppam moo tëj jàkka yi

nee na buñ demee ba élite yi ñi ñu dénk réew mi boroom xam-xam yi amuñu taxawaay peuple bi am taxawaay ci boppam man li ma gëm mooy condition yi ñu wax néew ma mënul nekk de te maa ngi souhaité mu mën a nekk parce que boo taxawee di défendre ni nañ tëj jàkka ñu bare bari dina am fuñ la dëkkale waaye yow li am solo mooy nit boo ko dëkkalee fu mu dëkkul it yàlla xam na yonent bi xam na ñun ku ñu xam-xam ni dañu judd ci jàkk judd rek commencé yor ay ay responsabilité ci jàkk ñu ngi ci sant yàlla bu baax ci xéewal googu mu ñu xéewale kon ñun waxuñu pour ñu tëj jàkk encore une fois dama bëgg ñu dégloonte ak xel li ñu wax mooy est-ce condition yi ñu wax mën naa réunir ci jàkk yëpp déedéet mënul réunir ci jàkk yëpp jàkk yi mu mën a réunir ah ñu ngi leen di souhaiter ñu réunir ko waaye nag ñi nga xam ne jàpp nañ seen jàkk mënuñ koo réunir nañ am courage taxaw ni jàkka yi mënu ko réunir parce que mbokk yi bu ñu naxante Sénégal sunu sunu mag ñi nga xam ne dañoo am li ñuy tuddee troisième age ñu ci bari dañuy fréquenter jàkka yi ñoom ñoo ëpp sax ci ñuy fréquenter jàkk yi donte jeunes dinañ fa bari waaye ñooñu ñoo fa ëpp te ñooñu ñu ci bari kenn ku ci ne am nga feebar boo xam ni lu mel ay feebaru jabet AVC tension feebar yooyu docteurs yi ñoo ko wax waxuma li borom li imaam yi wax de docteurs yi ñoo ni feebar yooyu bu fekkee ni fekk na la ak virus bi mën na laa rey rey bu gaaw kon bu ñu sacrifier suñ mag ñooñu léegi daal pression am na ba ubbi nañ jàkka yi nañ am courage nag daal di képp koo xam ne gisoo ni conditions yi mënoo ko réunir nga tej sa jàkk rek julli sa kër parce que mbokk yi kenn terewul kenn julli encore une fois te Sénégal kenn mënu fee tere kenn julli ko xam démb bi Sénégal xam fi Sénégal jaar ba ak si fii nga xam ni depuis 1603 Sénégal am na ay université islamique ay révolution islamique jaar fi kenn mënu fee tere kenn julli mbokk yi buñ def amalgame dañoo wax ni yi regroupement bi la bañ mbooloo mi dajaloo kon nañ ci dem rek ak responsabilité man de moom ubbiwu ma sama jàkk tey ubbiwu ma ko suba ubbiwu ma ko ginnaaw suba fii ak mbas maa ngi fi li tëjoon jàkk yi daal fii ak mu ngi fi man maa ngi toog di xaar ba xam li ko tëjoon fu mu jëm waaw ñu nangul ñu ko nag kenn ku ci ne ñu nangul la la nga nekk parce que loolu mooy l'islam l'islam loolu mooy richesse am ku ne ñu nangul la la nga gëm c'est important mbokk yi waaw ixtilaaful ulama u rahma loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wa mu des école bi mbokk yi école bi nañ ci def ndànk parce que man jàngalekat laa école laa yor kon mën naa cee wax suñ école yi fii Sénégal bu ñu naxante amul benn classe fii ci Sénégal ci benn école boo xam ni bu dul yenn école privée yi te bariwuñu mën nga leen a wàññi ci baaraam yoo xam ni boo duggee ca classe ba dafa fekk plus de quarante élèves ci benn salle loolu mooy li am kenn mënu koo dindi ku ko nangu mooy li am ku ko nanguwul mooy li am kon gouvernement bi décision boobu war na ko xool bu baax a baax waaw parce que mbokk yi man vivre avec le virus d'accorduma ci te anti l'islam la l'islam waxul l'islam lañu wax ñun waxuñu lu république di wax de l'islam nee na bu l'islam d'accordul ci vivre avec le virus te loolu maa ngi ciy woo borom xam-xam yëpp ñu am courage wax ci parce que vivre avec le virus yonent bi moo ñu ko tere ñun yonent bi nee na bu mbas amee ku ne na nga toog fa nga dëkk ba mbas mi bu la fekkee ci dëkk boo duggee bul génn boo duggagul bul dugg loolu la ñu yonent bi jàngal mbokk yi mbas am na saxaaba yu bari mën nañ cee cité ku mel ni Muaz ibnu Jabal nga xam ni bokkoon na ci saxaaba yi nga xam ne yonent bi moo leen yar solo ay xaddis yu baree bari taarix wane na ni mbas moo ko rey kon mbas mën naa rey ku nekk donte kenn suwetewul kenn dee waaye nag lislaam dafa am lum ñu tere woon yàlla nee na wala tulqu bi ay jiikum ila tahluka bu leen yóbbu seen bopp ci alkande alquran waxaat ñu ni wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp l'islam dafa bañ xaru de mbokk yi kon vivre avec le virus slogan la boo boo xam ni lu jar a xoolaat la te bu ñu fàtte ni OMS am na lu ñu waxoon panafricaniste yépp jóg tëb bu ñu fàtte ni secrétaire général Nations Unies bi am na lu mu waxoon neew na deux millions personnes dina faatu ci virus bi ci Afrique est-ce que kon avec le virus du ko yombal parce que mbokk yi économie bi ñuy wax économie économie mais bala nga ni naam ne bala nga ni naam ne fa la santé avant tout loolu yéen a ko wax te Sénégal xiif bi ñuy wax amagu fi buñ naxante Sénégal xiif amagu fi man jàpp naa ni gouvernement bi cap bi mu njëkkoon a jël mooy bi gënoon mooy mu jéema wut ay solution ñu jéem a gérer feebar bi ba man koo maîtriser mais cas yi di gën a yokk ñu indi slogan wu vivre avec le virus man dalul sama xel démocratie nag. buñ ci nekkee ku ne li dal sa xel rek ngay wax ñu nekkuñu fi di contre kenn wala ñuy ànd ak kenn waaye nag ay citoyen lañ te ay boroomi xel lañ nag te ay universitaire lañ buñ déggee loo xam ni yanu na maanaa dinañ ko xam lu yenuwul maanaa dinañ ko xam kon maa ngi leen di fàttali la Thomas Sankara waxoon ce que les élites ne font pas pour le peuple le peuple le fera pour lui-même kon comme gouvernement bi moom lim ñu wax dégg nañ ko ndax ju doy na boroom xel mooy démerdeel leen seen bopp man loolu laa dégg man ci discours bi man loolu laa dégg kon na ku ne jël say responsabilité téye sa njaboot na ku ne jël say responsabilité sàmm sa bopp waaw sàmm sa bopp gouvernement nag mën naa dem jël décision dem ba ci biir xam ni décision bi mu jël gënul mu dellu ci ginnaaw mais vivre avec le virus man dalul sama xel te anti l'islam la de moom l'islam moom d'accord ci te loolu borom xam-xam yi maa ngi leen di woo ngeen wax ci parce que nag bu ñu tollee ci moment yi mbokk yi ay critique wala ay saaga wala ay attaque warul tere kenn ku ne wax li nga jàng ak li nga gëm boo gisee ku mel ni Cheikh Hadji Abdou Aziz ak sëñ Abdoulaye ñu marqué seen jamono dañoo bokkoon ci borom xam-xam yi nga xam dañoo nangu woon critique daan nañ def ay discours ba pare nit ñi duñ ci ànd mais teewul daan nañ ko def kon maa ngi woo borom xam-xam yi ñu continuer jël débat bi teg ko ci taabal ji ba xam vivre avec le virus Sénégal pare na pour loolu parce que ñun buñ naxante Sénégal bu dul bu dul feebar sax xam nañ ni xam nañ ni ñun suñ réew yi yenn maturité yi amu fi. donte Sénégal am na peuple bu ñor la mais des na ba tey réew mu bari ay analphabète ñoo fi nekk parce que école bi ñu jàngal la jàngaluñ ñu suñ bopp presque dañoo importer ay mbir rek sol ñu ko kon mu gudd mu gàtt réew day toll foo xam ne ku ne da ngay jël say responsabilité xëy na ñi gëm ni ñoom il faut ñu ubbi jàkka yi moo dal seen xel nañ ko def mais nañ ko def ak responsabilité waaye ñi gëm ni jàkk yi warul tijjeeku parce que li taxoon mu tëju ba tey mu ngi fi ñooñu nañ continuer tëj seen i jàkk te man ci ñooñu laa bokk nangul nag ñi tijji ndax it am na fuñ ko teg waaye nag tijji ba pare conditions yi réunirul loolu moom trahison la te jullit warul trahir te mbokk yi benn bakkan bala maa dee ñu naan fukki nit ak ñeent ñoo dee ci mbas mi xanaa dañu fàttali yàlla wax yàlla nee na man xatala nafsan wahidan faka ka annama xatala naasa jamian wa man ahyaha faka annama ahya naasa jamian yàlla nee na benn bakkan bu faatu dafa mel ni àdduna yëpp faatu benn bakkan boo sauvé bu waroon a dee nga fexe ba mu dund dafa mel ni àdduna yëpp dund na kon l'islam dafa fonk bakkanu doomu aadama bakkan du caaxaan julli farata la woor farata la waaye nag fexe ba fekk bakkanu doomu aadama mu dund ci jàmm it farata la kon nañu jiital suñu xel lu waay di wax nga seet yàlla te bàyyi accusation yi yooyu amul njariñ accuser nit nit faramason la nit nit gëmul yàlla nit góor jigéen la yooyu amul njariñ mbokk yi yooyu yooyu amul njariñ nit talal sa bopp man samay bàkkaar laa gën a tal que di accuser keneen parce que man xam naa sama bopp xam naa nit ku bari bàkkaar laa damay lijjanti loolu moo gën may lijjanti bàkkaaru jàmbur fekkonte ngor jigen baxul franc baxul mais bala nga koy accuser nit war nga ci am ay preuve te discours islam radical bi ñu ñu bëgg indil du islamu Senegal de mbokk yi loolu il faut ñu wax ko ak responsabilité islam bi ñu xamoon ñun senegal mooy islam bi fi Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi islam bi fi Seydil Hadji malik bàyyi mooy islam boo xam ni cohabitation lay woote islamu yar islamu am kilifa islaamu nangoo déglu kilifa mbokk yi parce que réew mi kilifa gu wax ñu saaga la ba kilifa yu bari ñemeetu ñoo wax il faut ñu déglu suñ kilifa yi parce que loolu mooy ñun ñun islam boobu la ñu donn te waruñu nangu ñu ñu ñu dugalal ñu beneen islam bu bokkut ak bi fi nekkoon te loolu mu ngi commencé di am ci réew mi ñu ngi ziyaare waat ñëpp di baalu àq ñëpp di wax ni lépp lu ci dëng ngeen xam ni matadik doomu aadama lu ci jub ngeen xam ni kenn ci daara ji kuy góorgóorlu waaye nag di wax li mu gëm ak lu mu metti metti di ziare borom xam-xam yi ak xalifa généraux yi in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wa akhru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ta'ala wa barakatuh